dal leen ak jàmm xalam demoon na bay neex buum nga mel ni luy waaj a dog Luc Nicolaï promoteur des grands événements mi taxawoon ci tëgg combat bi nga xamante ne moo waroon a boole doomu parcelle bi di Modou Lo roi des arènes ak doomu Pikine bi di Ama Baldé mel na ni tey moom la yoon teg loxo looloo waral ñuy am tiit ak njàqare ci combat bi nga xamante ne pare woon na pour tëgg ko ba pare ndax dina am am déet yàlla bu yaakaar tas ak komba Modou Lo Ama Baldé lamb ji neexoon na ba pare bile gént boo xamante ne nii mbooleem ëxlu làmb ñoo ko doon laaj doon ko pare te yaakaaroon mu am ci saison bi mel na ne ay lënt-lënt judd na ci ginnaaw bi ñu jàppee ki nga xam ne moom moo nekkoon promoteuru combat boobu doxoon ci diggante Ama Baldé ak Modou Lo Luc Nicolaï gendarmerie teg na ko loxo wala sax tegaat na ko loxo ginnaaw bi ñu ko bàyyee woon ci bàyyi négandiku Ama Balde mbër mu doon bëree ci baayam Falaay Balde nekkoon ku xarañoon lool ci jamono moom Ama Balde toll ci digg ndëndam digg dooleem am doole ju bari nekk xale bu ndaw làmb yépp am ci moom yaakaar ñépp jàppoon ne jamono jii nii moom Ama Balde rek moom moo nekkoon adversaire de taille maanaam ki nga xamante ne dëgg-dëgg moo war a mën a jàmmarloo ak Modou mi nga xamante ne jamono jii moom mooy roi des arènes dayoogu làmb googu am taxoon nañu bari di ko xaar waaye ànd ak loolu li mu doon laaj xaalis ndax ñaari mbër yi kat cher gu ñu cher tax na ñu yaakaaroon ne ci promoteur yi fi nekk kenn ci ñoom xëy na du daal di am fitu tëgg bile combat ndax lim doon laaj ci ay koppar dafa bari lool bokk na ci xayma guñ doon xayma boogulee koppar di wax ne mooduloo doon na jar ba lu téeméer ak juróom fukk ci ay millions ci boobule waxtu moom Ama Baldé fësaloon na xam xamle ne war nañ ko fay lu toll ci téeméeri million ngir mu mën a bëre boobule combat loolu taxoon ba ay amateurs xaaroon ne mbir mi xëy na combat bi su naree amit du yomb ndax du ñu gaaw a gis promoteur bu war a mën a génnee xaalis bu nu mel ngir def ko ci bile combat waaye jamono jooju am nañ kat ab ndaanaan su mag ku ñu xàmmee muy Luc Nicolaï moom moo ñëw dal di fësal mbir mi li ñu ñëpp ñëp doon gént mu yëkkati ko def ko muy dëggantaan moom Luc Nicolaï dal di pare ci tëgg combat boobu wara a mën a boole kii di doomu Pikine bi di sa di Ama Baldé ak la Roc des Parcelles Assainies loo Modou xarañ loo moom Luc Nicolaï dal di jaar ci suuf di waxtaan ak ñaari mbër yooyu ba fexe ba am ñoom ñaar seen uh, kàddu ci sëgg bile komba te pare woon na ngir fay leen waaye lii lay duggule te ci Luc Nicolaï ndax yàgg naa tëgg combat yu ni mel yoo xamante ne lu bari ci promoteur yi dañu doon hésité ngir tëgg ko moom moo ñëw dal di koy dal di tëgg ci ayu bés yi ñu génn moom Luc Nicolaï dal di génn xam la ne komba bi pare na ba pare te ci day joxe lii di avance ñaari mbër mën a sëgg préparer seen combat boobu mu nekkoon combat boo xamante ne ñu ngi ko doon xaar ñëpp kontaan noon ci tëgg googu ñu tëgg bi le combat waa axlu làmb yëpp di ci féliciter seen bopp te di yaakaar bés bi ñëw ci jàmm ñu fekkee ko ndax neex gu combat boobu waroon a neex daanaka lépp pare woon ba ñaari manager ñaari mbër yooyu maanaam bu Modou ak bu Ama de daje woon nañu fële ca cabinet maître Babacar Cissé di avocat bu Luc Nicolaï ngir signer cachet avance ci bëre bi mu mel nii wure wa demoon na këng waaye dañ ko mujj jëli ana ñen ñoo ko jëli mooy waa gendarmerie boobu tiyee bu ñu téyee Luc Nicolaï moo nar a nekk li wara a indi ay ndëgg sërëx ci li nga xamante ne mooy combat bi pare woon ba pare nar a tas yaakaaru ñaari mbër yi jàpp gu ñu jàppoon Luc Nicolaï ci wàllum xaalis ba taxoon ñu téye ko fi ay fan gannaaw loolu ñu bàyyi woon ko fi ab bàyyum néganiku bi mu génnee daal di fisale xaalis bu ñu toll war ko def ci combat bu war a dem ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé ci la waa gendarmerie daal di ressaisir daal di koy woowaat déedéet sax daanaka dañu ko jëli ca Mbuur lañ ko fekk ci biir njabootam daal di ko fay jëlee daal di koy yóbba fële ca gendarmerie ba dalee ko foofu ñu jëlee ko foofu daal di koy yóbbuwaat fële ca Thiès jàpp googu ñu ko jàpp moo nar a taqal suuf combat bi naroon a am te ñëpp amoon ci yaakaar doomu Pikine ji di Ama Baldé pare woon na ngir bëre combat bi te xamoon na ne dafa waroon a liggéey liggéey bu metti ngir mën a daje ak kii ñuy wooye xarañ loo loolu taxoon ba ci wàccaayam mu xamale woon ne moom dina dem ba France ak États-Unis ngir yoo xamante ne moo koy mën a may su jàkkaarloo ak xarañloo daal di koy daan moom xarañloo itam ci boppam fi li mu féetee moom it bàyyiwul woon boppam ndax daanaka tàmbali woon na sax ay entraînement yu tar ngir préparer combat bi ndax kat daf doon mettre en jeu lii di couronam lu làmb nag ñoom kenn demul ñu des ndax ñëpp pare woon nañu ñenn ñi commencé woon di commentaire combat bi nga xamante ne Luc Nicolaï pare woon na pour tëgg ko te mu waroon a am ci mois de juillet bii di ñëw waa gendarmerie olof Ndiaye nee na balaa nga naan naam ne fa te ko Nicolaï nekk fii mu ngi ci loxoy yoon nan la combat bi di mujjee ndax yoon daf koy bàyyi mu ñëw continuer tëgg combat bi am danga koy mujjee tuyee combat bi daal di nax sax lu ci mën di am daal amateur dafa mel ni fi mu toll nii danañ xaaraat tuuti ba mën a am lu leen leer kon dañ ci gëstuwaat indil leen ay leeral ngir mën a xam rek Ama Baldé ginte ci rek ndawal fan lay mujjee ak Modou Xarañ Lo Ababacar Ababacar Mbaye Modou Lo jërë ngeen jëf